الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله تندقل قادم الأمة مولانا الشيخ محمد الماحي الشيخ إبراهيم نيس تندقل الشيخ محمد الأمين الشيخ إبراهيم نيس دير بريزون خليف في دكار تندقل الشيخ محمد الماحي الشيخ سرين باي نيس تكر مجمل تندقل الشيخ إبراهيم باي لمن في دكار رحمة الله عليه موسى جاسي si turu magam Barham jase ak Ibrahima Jaase ñu ngi yëgal mboolem jullit ñi mboolem muqaddam yi mboolem taaliba yi ak xarit yi ak soppe yi ne koor biñ doon xaar dana yes ci alxames le 17 novembre 2022 ci aéroport Blaise Diagne ci 17 heures incha allahu rabbi foofu la ñuy defee levée de corps bi suñ paree ñu ànd ak corps bi yóbbu ko kër ma jëbal ba seddi ajjuma tolloo dix-huit à partir de dix heures ñu jëbal ko boromam incha allahu rabbi si kër ma jëbal ñu ngi beesalaat suñ jaal di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu